maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp ginnaaw bi ñu sante yàlla julli suñuy waajur suñuy wasila ah tey dama am santiment de fierté bu mag a mag a mag a mag foogoon naa ni sax duma mën a wax parce que ñun dañu nekk ay jeunes nekk ci réew mi kenn utaluñu métier ñun ñoo utal suñu bopp métier muy mbër mbër kenn du fekk mbër ci biir kër dem inscrire ko ci benn écurie di ko fayal weer mu fay jàng bëre donc ñun ñoo def suñu bopp métier bi ñu am ñoo ko utal sunu bopp ñëw fekk fi làmb fekk fi suñuy mag yu yu fekk fi suñuy kilifa yu mag yi nekkoon ci làmb di ko doxal ba ñun ñu judd ci réew mi ñu ci bari si ñun amuñu chance su def école jàng ba tey ñu ñuy woowee de analphabètes tey entité boobu ci société bi ñoom la ñu gën a seetaan mooy ñi nga xam ne tey amuñu benn formation wala amuñu chance su dem école te Sénégal dafa yaatu ni ko yàlla bindee dafa nekk dëkk boo xam ne ñëpp mënuñu am chance su dem école ñii dañuy jàng daara ñii dañuy jàng école mais tey boo xoolee suñu suñu société bi tey ñi nga xam ne ñoo génn ci école yi rek la ñu gën a privilégié parce que ñoom lañu am ay ay mécanisme yoo xam ne tey bu ñu génnee ci école yi mun nañ fa dem ñun nag ñu nekk ay gor nekk ay jeunes di daan suñu doole di dimbali suñuy waajur ci làmb bu ñu xëyee fajar ñu ngi ci diini ñu ngi ci saali dañuy dem mbapat bari ba fajar sax duñu am lu ñu lekk di ko muñ teewul sàcc ñu fenn ñu agressé wuñu tey Bamba wax na ko sànq du ñëpp mën a doon Balla Gaye du ñëpp mën a doon Modou Lo yàlla dina am cent personnes yoo gis dina am ñeent wala juróom yu mu ci génne mais ña ca des lan leen leen lan la leen lan la leen lan la leen promettre ci seen societé dara ba tax na tey damay wax ci bàmba dama ne Bamba état warul sax xaar ñu koy interpeller ci lii dañoo war a jóg defar ay bâtiment yoo xam ne ay immeuble yoo xam ne ay centre de formation lay doon at ay diplôme d'état at ay accompagnement nga xam ne bu ñu génnee foofu tey dañ leen di insérer le plus rapidement possible tey Bamba mérité na ñu jox ko terrain bu rëy tabaxal ko ko boole ko ay technicien at ay accompagnement muy former jeunes parce que tey koo xam ne da nga demoon immigré di liggéey di am sa salaire di dimbali sa bopp di dimbali say waajur nga ne fa ñukk loolu yëpp la nga am at la nga amul lépp nga boole ñëw di dimbali say jeunes dëkk tey lii la ñuy wax patriote bu ñuy wax moomu patriote mooy li Bamba di def nii lii mooy patriotisme man def naa carrière vingt cinq ans bëri naa bëri naa ku nekk ci làmb mais dama bàyyi bëre prématurément mooy bàyyi bëre boo xam ne yaakaaruma ko woon xaaruma ko ba ma ci pare ma ne man lan laa war a def ban ban ban utilité j'aime bien ma sentir utile ban utilité laa mën a am ci société jël naa suma xaalis cinq millions dem tëggi làmb ñi ñëpp fekkee nañ ko ma gis ni dëgg làmb bi ak condition yi ak làmb bii ma jógee lii du mu du man ma toog xalaat ci samay capacité xool ne man mii kat mën naa def sécurité ndax liggéey naa ko Bamba tudd na ko léegi ba ma demee fi ñuy au niveau du gendarmerie Colobane ci major ña defe na sooy xam na ko cent 500000 francs laa fay pour def formation man huit mois laa def formation génn at suma diplôme ak suma carte professionnelle ñu boole maat ay VIP pour ma war dem dem leen liggéeyal man le man du ma nekk ci société bi fréquenter jeunes yi fréquenter écuries yi xam li ñu ñi di dund di dem di liggéey feneen pour tal sama bopp damay créer sama société di dimbali samay jeune quartier ak jeunes yi nga xam ne tey ñoo nekk ci écurie yi mënuñu doon Balla Gaye mënuñu doon Bombardier mënuñu doon Modou te ñoom ñooy jàppale champion yi nekk ci écurie yi te ñu paree après dañ leen di fàtte ma commencé ci loolu taxawal sama société yàlla mi ngi ma ciy dimbali tey defe naa ñu bëri fii si ñoom xamante nañu ci terrain bi ba tax na tey yéen chance bi ngeen am am ku leen di encadré di leen defal formation te du ngeen ci fay dërëm ëllëg ngeen am ci liggéey donc da ngeen di sant yàlla ba pare gërëm Bamba. parce que tey fii Sénégal ñi fi yor école de formation ñëpp ñu fi gën a tuuti tuuti tuuti tuuti boo fa demee 100000 francs ngay fay te ñoo ñu seen carte ils sont pas reconnus par l' tey Bamba état daf la war a kattanal kattanal mooy lan. mooy yokk sa doole yokk sa capacité ba pare ànd ak yow di la accompagner mooy jox ay jël ay diplôme yi nga xam ne tey c'est reconnu par l'État di la ko jox ñi ngay former nga leen koy jox tey établissement état bu ñu dem taxaw ñu mën leen liggéey parce que diplôme yi ñu yor c'est par l'État mm-hmm. benn ci loolu mm-hmm. ñaar président Macky Sall ku ne bëggul làmb da lay nax xëy na kay ñi ko wër ñoo liggéeyul lu jëm ci làmb parce que bu ñu fàttalikoo grand élage am na benn moment woon nañ fi écurie yi yëpp dajale leen fii ci stade Léopold Sédar Senghor signaloo leen ay convention mooy le truc de Prodac mooy jël écurie yëpp yóbbu leen yóbbu nañ ñu fi kër Mamar Sarr yóbbu nañu fi kër Sàmbkan journaliste yi yéen a ngi nii yéen a ngi fekkee ngeen ko war ñu fi ay terrain ay hectares yi hectares yi hectares ñu ne woon écurie bu nekk dañ lay jox 4 hectares yaag sa waa écurie boole la ak ay techniciens ñu jàngal leen ni ngeen di bayee jox leen ay chemins tey écurie bu nekk nekk fa am terrain d'entraînement am ci biir di bay li ñu bay état bi moo koy jënd tey ñu nekkoon ci loolu vingt deux milliards génn ci deux milliards yooyu may wax a yow ba fii may wax ak yow kenn xamul fu mu jaar kenn xamul fu mu jaar te tey te loolu c'était destiné pour les jeunes lutteurs kon président Macky Sall am na yéene. pour dimbale jeunes dëkkam tey ñi muy fi muy fi alal jooju di jaar wala fu loolu di jaar moo dul accès si jeunes yi ba tax na tey bàmba man de Balla Diouf lépp lu Bamba dugg bés ni ki tey at fiis maa ngi ci parce que ñii li ñuy def xaaruñu ci état xaaruñu ci kenn yàlla rek lañ ciy seet te ñu ngi liggéey pour Sénégal merci